Gaoussou euh, verdigu tey bi dugalaat Ousmane Sonko ci yëf yi euh, ñu bëri ils ont applaudi euh, yow bëggoon naa xam un peu naka nga ko gisee la justice a fait son travail la pression a porté wala ban jàngat nga ci am. moo tax tey sama xel dafa demaat ci xale yi nga xam ne ne dañoo ñàkk seen bakkan Sénégal yu yàggul dara ci manifestation yi. ndax lan ndax boo gisee. sunu magistrat yi décision bi ñu jël te yàgg jël décision yu ñu mel. ak yu war ak moom. ak yu war moom. Mhm. ndax c'est la justice comme ni ko maître waxee léegi léegi. nga gis na ne am na ñoo xam ne gëmloo woon nañ ay ndaw gëmloo woon nañ ay sénégalais ne leen justice réew mii xaw ma ban réew waaye réew mi justice amu fi. gëmloo woon nañ ay doomu jàmbur duggaloon nañ manipuler woon nañ ay xale ba gëmloo woon leen ne man de fépp fu ma ñii dañuy am benn plan naka la ñuy def mooy nuñ may reyee alors que ne loolu lépp tey boo xoolee l'histoire won nañu ne tey loolu yëpp ay waxi naka sa kanam rek la gis nga man dama leen yàgg wax ne leen li ngeen di wax amut te c'est dommage aujourd'hui que ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk ci tele parce que dañoo far far rek. bëgg a défendre l'indéfendable man loolu moo ma metti te leer na leen ne li ñuy wax noo seulement gëmuñu ko wax waxi politique la waaye waroon nañu am xelu sóoraale doomu jàmbur yi nga xam ne ne dee nañu ci ay mensonge à manipulation xam nga mooy lan. manipulation c'est des deux bords non xam nga Mamadou Mamadou Mamadou Awa tey l'état du Sénégal le président Macky Sall la justice sénégalaise xam nga tamit il faudrait qu'on qu'on qu'on s'habitue à dire la vérité c'est important loolu pour man mooy base lépp. Mhm. c'est pas que dama far ou bien faruma tey Ousmane Sonko bi mu amee problème à justice bu defoon ni Karim Wade defoon. mooy mooy dem répondre à la justice waaye jël lépp teg ko ci justice di déglu justice topp justice lu ko justice may mu jël tooñ na tooñul tey ak lu waay mënti wax ba Sénégal di tukki ba àdduna du tukki. Karim Wade kenn du mës wax ne ne moom de bi muy biñ koy jiiñ def nam defut oo na sénégalais yi ñu dee tey le président Ablaye Wade soixante seize la créé parti deux mille lay doog jël parten soixante quatorze soixante quatorze mhm. deux mille la jël parten combien d'années après loolu nekk dans l'opposition ñi koy jàpp di ko tëj di ko génne di ko jàpp di ko tëj di ko génne di ko jàpp di ko tëj di ko génne ba tey yàlla jox ko nguur mhm. nguur boo ko bëggee jël mu lenn la ne yow da ngaa nekk ci réew moo xam ne ne réew mi plus de cinq pour cent de la jeunesse à plus à moins de 25 ans. sa mhm. discours ak sa communication pour man mooy base lépp ndax dafa am solo lool lool lool lool lool lool. Mhm. tey nag sénégalais yi sénégalais bu yeew ax ndaw bu yeew war ngaa xam ne ne Sénégal. am na justice ou bien amul justice. mais Gaoussou tey bu fekkee ne ne. décision on se félicite de ce euh, verdict d'accord mais le plus grand perdant c'est Ousmane Sonko. ba tey jotagul fiche de parrainage. waaw mais xam nga maanaam pendant tout ce temps. va-et-vient yi bu ñu xam ne mënoon na ñàkk dès le départ. xam nga euh, Mamadou Awa Sénégal justice Sénégal dafa am na muy fonctionner dafa am ni ko maître waxee ay instances. Mhm. yow moom recours yi ko yoon may yépp tey moom jël na ko def na ko. c'est loolu ay procédure la yoo xam ne depuis moom juddoogul mu ngi fii ci réew mi. Mhm. donc moom bu ñëwee respecté na décision yooyu lan moo tax jamono ci ginnaaw a ginnaaw a ginnaaw mënul woon taxaw a sénégalais yi taxaw ak ay avocats am taxaw ay conseils am na leen xam nga lan la man liñ may jiin lii ak lii ak lii ak lii defuma ko. je fais confiance a la justice de mon pays gis nga jamono jooju bu ko defoon. Mhm. mais tey problème bi ngay wax di ko wàcc loolu lépp du ci am. peut-être problème bi évacué nañ ko yàgg na mais man moom raw fi may jeexale mooy di gën a conscientiser surtout la jeunesse parce que ñun politiciens yi ou bien ku bëgg owee sa bopp politique nanga nga sa bopp politique mhm. bu ñu gisee ne ne yàlla mën na def ñu falu suba sunu njaboot ak suñu bopp ak suñu nit rek moo ñuy moo ñuy intéressé waaye du ñu xool ci ginnaaw xale bi nga xam ne ne daa nekk yaakaar ci famem tey ñaata xale ñoo nekk ci kaso bi. ak ñi faatu kay. tey ñaata nit ñoo faatu. Mm-hmm. tey ñi doon wax naan ay frappe ay frappe Sénégal dégage xaw ma lan lan lan ay xawma indi théoriser ay yoo xam ne gëmuñu si dara. comment vous pouvez dire ça. non parce que Maodo lu tax mu ne la mën dama cee mën a wax lu bari mooy tey li ma leer ba leer mooy PAM mi bokk su ñoom man maa leen gën a bokk maa ko gënoon bokk su ñoom gën ko xam li fa xew. gis nga waa ex Pastef dañuy politique rek. comme tout le monde. comme tout le monde loolu laa bëgg dégg c'est-à-dire ñoom schéma yi waa PDS di teg nga xam ne ne PDS ñoo dàq politique Sénégal. loolu moom dañu koy waa Bennoo di ko teg. waa PS di ko teg keneen ndax keneen ñoom ce sont des faits politiciens mais man li may bañ mooy. Mhm. ñi jéem a gëmloo Sénégalais yi jéem a gëmloo jeunesse bi que ñoom. ay dañoo indi benn révolu benn xeetu révolution ci réew mi mais une révolution peut être pacifique mën nga mën nga ne def comme li euh, euh, parti socialiste di politique mën nga def comme li PDS di politique. PDS dañoo sage léegi mais ñu gënoon a doy waar ay waaw mais lu ñu doyoon waar <laughs> xam nga PDS lu ñu doyoon waar dañoo doyoon waar dans l'histoire man de li ma fekkee. Mhm. musuma gis le président Abdoulaye Wade daal di wax nañu dem pale génn ki fa nekk musumaa gis le président Ablaye Wade daal di ne nañ jéem xool ki ki fi nekk nii bu deful ñun li ñu bëgg ñu fekk ko rey ko. tontu ko parce que dafa am benn parce que dafa am non xam nga tey neexal débat xam nga xëccoo la. Mamadou Awa tey xale yi ndaw yi. yow tey man am na ci loo xam ne bu ma la ko waxee da ngay xam ne ne waxi politique la. Mhm. mais jeunesse bi ma gis nii am na ci loo xam ne boo leen ko waxee. maanaam ils prennent Sonko dañ ko cest lool la xam nga gis nga man dafa am ku may waxtaanal ma ne ko. Euh, bi ñu jógee suñu première réunion d'évaluation ah, rapidement nga jeexal foofu suñu première réunion d'évaluation 2019 bi ñu paree ci laa wax euh, benn kilifa mu ne ko kii mu ne ko Ousmane dafa mel ni xamul li mu am parce que boobu dañu waroon dem moom Idrissa Seck euh, ki nekkoon PUR Issa Sall ak ak ak Madické ah ok ñu xool naka la ñuy organiser woo pour mettre la pression sur le président Macky Sall mais mu jékki-jékki dégager toute responsabilité mais jël 16 pour cent yi baril ko bari boo xam ne. 15 15 mm. bon li ko manqué woon 16 pour cent quand bariwul woon. Mm. quinze et quelques pour cent yi baril ko bari boo xam ne ne mel ni na moom il sera le futur président du Sénégal. c'est-à-dire que ne c'était bien aussi c'est-à-dire moom dafa am non li ma lay wax nii dafa am solo moom doo wax. moom dafa am lu tegu ci moom loo xam ne ne antanu ko. ok gis nga popularité succès da koo teel a dab. succès bi koo teel a ba pare c'est par rapport à son discours aussi pare amul chance il parle à la jeunesse qui amul chance amul chance ñun ñi nga xam ne ne ku mel ni ay docteur Ablaye Niane ay Bruno Deneville Boubacar Camara man ñi nga xam ne ne ñoo nekkoon ci yotam di ko wax dëgg ñooñu nga xam ne ne saa yi demoon bay war a jeng ñu delloo ci ko après dafa écarté ñëpp jël ay ñoo xam ne ay xale lañ ah ñoo xam ne xam naa leen ñu ñu ñu jàmbaare ñu bëgg dara mais xelu xale deretu xale ak gis-gisu xale ak gis-gisu mag loolu moo ko jural li mu nekkee tey loolu moo ko jural parce que tey bu fekkoon ne ne amoon na ay borom xam-xam ay ñu am vision fi ñu jëm suba ñooñu dinañ ne ko jàmbaar mm-hmm. fi nga nekk baaxul réew boo ko bëggee jël da koy naxante naxante ko ba jël ko mais ne Sénégal amul justice ne dañ ko bëgg a rey ne dañ ko bëgg a rey tey justice boobu nga doon tam dëmm jox la dëgg tey gàcce ngaaraam